la ziar. Eh, waa Pikine Info maa leen delloo ziar. mais Franc ba saison bi ubbee ba léegi gisaguñu Franc sëgg gisaguñu Franc am combat nu mu demee noonu. waaw maa ngi sumay entraînement xam nga nekk nekk suma nekk parcelle toog di xaar quoi. pourquoi Franc amagul combat ba léegi. waaw ñu ngi wax ay adversaire quoi mais ci adversaire yi la quoi. dañoo dégg ñu ah Franc joroon la soxla wala de ndax xale laa damaa toll ci bëre maa war a dégg naa si wéy béy ñu ne da daan Mbaye Tine ah Général Malika daan Mbaye Tine Général Malika nee na foo foo nekk dina la fekk. man soxla woo bëreeg moom moom moo soxla bëreeg man xam nga lox mais bu ko bëggee pare na. mais gis nañ tamit France li simple ba léegi France wàccagul lu mu demee noonu. waaw jot naa wàcc quoi mais après daa am ci yu ma nekkoon moo tax ma arrêté tuuti quoi. oui kon mun nañu xaar France yeneen feem. incha allah France ñu ngi la jaajëfal. waaw yéen tam di leen bëggee di leen ziar xam nga. yàlla na yàlla defal jàmm. Ah. jaajëf Franc bi nga.